jërëjëf mbokk yi gis ngeen bon

ak euh, Abdou Karim Xrum Xax donc dina ci indi tout ay leeral maintenant ñu jox sëriñ bi ñu nuyu ko mu expliquer ce qui s'est passé réellement ñu ngi lay nuyu sëriñ bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Oustaz Taha Niang di fay nuyoo mboolem waa Sénégal di leen fay nuyoo di nuyu tamit kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo ñooñu yilif mu matale ñëpp rawatina xalifa généraux yi di nuyu suñu mbokk sëñ daara yi di leen jaajëfal. ci bi nga xam ne lii xew na ba léegi ñoom ñëpp seen taxawaay ah, di nuyu tamit suñu mbokk daara suñu soppe muy Abdou Karim Xurum Xaq bu ma nit dëgg ñu gis ko taxawaayam ci réew mi ci lu dul oo door ko daara ci côté bu nekk kon nag man mi nga xam ne man la ah, mbir mi daal ci sama kaw man ngeen seet si pour ñu leeralal ah, sénégalais li xew kon bismillah ñu leen dégg d' accord merci beaucoup sëriñ bi est ce que mën nga ñëwaat ci affaire yi ni mu demee réellement d' une li ñu waaw ci wax mooy na senegal yëpp xam na dëgg la ñuy wax parce que dañ ñoo yar jàngal ñu diine diine di ay principe am ay textes yoo xam ne moo ñu tënk pour ñu wax dëgg ci alquran ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana qulil xaq walaw kaana murran qulil xaq walaw ala nafsak waxal dëgg donte ne dëgg gi day dal ci sa waajur wala dëgg gi day wex wala muy daal ci senegal yëpp. waxal dëgg donte ne dëgg gi boo ko waxee ñu rey la wax ko ah li xew depuis jeudi passé fii lañ toog ci daara ji yor suñu kurus di virdo am yenn ci xale yi daw si ñëw na ma sëñ bi jàpp nañ ay ndongo ndongo yañ jàpp sama ndongo cousin la ak sama sëriñ bi nga xam ne ñun bu ñu doonee tout tànk bokk na ci ñu ñuy doon yar fii muy sëriñ osmaan ndongo yooyu. biñ leen jàppee ñu ñëw woo si ma ma ànd ak benn ñaari xale yu mag kenn ki mi ngi tudd Abdou Aziz Ndiaye kenn ki tudd Dame Thiam ak yenn xale yu ndaw bi ma demee ma xool ci biis bi ubbi bunt bi fekk bunt bi ñi ngi ko ferme gis naa fa benn mag mu bejjaaw nag du ma tudd turam xam ngeen ko yéen senegal dégg ngeen ko ci organes yi muy wax a ah, bi ma ñëwee fekk ñu tëj ko ma wàññeeku dem ci nga ñi nga xam ne ñoo téye xale yi xamoon na ay police lañ parce que ay civil lañ ñu tuddee brigade de mœurs bi ma ñëwee na leen da ngeen di bàyyi xale yi ñu ne ci kan yan raison la ñuy bàyyi xale yi ma ñii suñu ndongo lañ te fii ñu nekk daara dëgg moo fi nekk liggéey wane mooy jàng xale bi ngeen gi sànq parce que man fi laa jàngee alquran fi laa mokkalee alquran fi laa jàngee xam-xam fi laa amee bépp diplôme bi nit di am ci réew mi ba pare yoroon ay opportunité yu bëri ñu jox ñu daara ji kilifa gi ñu jàngal alxuraan wàcc liggéey fin 2019 ñu jox ñu daara ji ñu ñëw yore daara kon ci loolu la ñu yore daara ji li ñu wax nag li amoon au delà mooy bi ma waxee ak euh, waa ji mu ne du ñu jox xale yi daam moo taxaw te euh, ki nga xam ne civil la na ko xale yi di ngeen ñu ko jox ci nii wala ci nele xale yi di ñu ko jox nii wala ci nele léegi nag police euh, civil bi tàng poñe daam ak Abdou Aziz commencé nag di ko dóor toog naa di ko xool mais dóor na ko lu mat 4 virgule ba 5 xale bu ndaw nga di ko dóor ay sa loxo ma dox seen diggante ak ñoom ñu dóor ma ta yéen ñëpp jàngeen légitime de défense mooy nit ku nekk bu ñu naree toroxal sa njaboot wala ñu toroxal say taalibe wala ñu toroxal ak kum manti doon war nga mën a taxaw kay kay ko nara toroxal sa njaboot boo ko mënee défense nga défense ko boo mënee taxaw ci kanamam nga taxaw ci kanamam loolu laa def ñu dóor ma fayu ñu continuer di ma dóor man nañ lu mat juróomi police ba lu ko ëpp dóor nañ ma ba sama bët toj Sénégal yëpp gis ko pistolet gis naa ñu génn ko naroon ko dëbb sama bopp bi seen liif yi wallaahi maa ngi bi may xam ne ñoom ay police lañ mooy biñ génnee seen monot ndar ma monati fekk booba maa ngi sol sama veste biñ génnee monot ba dugal sama loxo ma rocc laa xam ne ñi ay police lañ ginnaaw gaañu na ma daw ñëwaat ci daara ji bi ma ñëwee fataw def sama benn audio bu gàtt yónnee ko suñuy kilifa mooy kilifa fédération nationale école coranique parce que fédération nationale école coranique du Sénégal man affaire euh, religieux euh, relation intérieur extérieur maa ko yore fii. beneen bi daara yi nga xam ne ñooy yalwaan man maay seen secretaire général président bi mi ngi kaw wax Lamine Fall la tudd di ko mag. kon loolu mooy li nga xam ne moo fi xew li fi xew lenn la mooy dañ doon dóor sama njaboot ma doon dox seen diggante ak ñoom pour buñ leen gaañ ñu gaañ ñu gaañ ma far man te lii nag ñaaw na ba ci kanamu yàlla. ñaawlu nañ ko sénégalais yëpp ñaawlu ko si kilifa diine yëpp ñaawlu ko rawatina suñu président bi nga xam ne moo ñu yilif ñun ñooy ay citoyen yor suñu carte d'identité nationale di voter fii ci Sénégal dëkk fi dëkk ci Sénégal di def lépp loo xam ne réalité la bu nit di def ci ay fay euh, euh, ni mu tudd lempo di fay yi ci war yëpp kon nag li ñuy def rek mooy ñaawlu nañ ko ñaawlu nañ ko ba fa ñaawlu yam ndax dañuy faral ñoom di ñëw di ramas xale yi. waaw. déglu nañ protection des enfants dafa am benn ministère bu am fii Sénégal muy ministère de la femme de la famille et de euh, euh, protection des enfants et du genre ministère boobu nag man xaw na ma jaaxal tuuti ñooñu nag ñoo jug ne dañuy protéger xale yi te man damaa jàpp ne xale yi protéger leen mooy ñu jàng alxuraan yar leen ci diine yor leen ci biir daare yi ñuy jàng ku fi dégg alxuraan duñ jàng xam ne ñii kenn yoru leen ñuy taxawaalu xale yi nag dañuy yalwaan man mii dama doon yalwaan yalwaan xaraamut léegi nag ñuy génn di yalwaane ñu leen di jàpp loolu amul fenn fu mu tegu ab bépp loi bu ko man di voté ak ñu ko man di voté nañ xam ne yalwaan ci réalité Sénégal la bokk nit ki boo na ko jëlee fi lii bàyyi lii dañ naan ko jàppal ci lii. Euh, dañu ñëw tey def dox seet seet suñu mbokk julit dox ñëw pour nemeeku suñu mbokk yi nga xamante ni euh, suñu njiit yu bon yi kasar yàlla yu bon yi dañuy jiital seen alkaati yi. dal seen kaw mooy comme ni ñu koy waxee saa ne rek euh, ñu ñëw fekk nag ñu jàpp suñu ustaas bi nga xam day jàngale alxuraan su ma ko waxee nag xam naa déggin bi du neex si wax bi waaye dañu ñëw dafa mel ni ñun dafa mel ni Seydina Mohamed lañ jàpp tëj ko bëgg koo dóor ndax ku ne xam nga ku ne bëgg nga Seydina Mohamed rek boo ne bëgg nga ko sallallahu alayhi wa war a bëgg jàngal ko alxuraan ndax rasulullah sallam mu ne mu ne ñu gën ci yéen moo ñu jàng alxuraan bu noppi di ko jàngale kon man ñeme naa sañ taxaw waat ni kii moo gën Macky Sall ndax Macky Sall jàngu alxuraan jàngalewu ko saatu ala faatiha lay wax ferul sax iji jàngalewu ko man yemee naa waat ni kii moom a gën man ndax man jàng naa li ma jàng mën julla man te jàngalewu ma man mën naa sañ waat ni Sénégal bu ñu tànnee bu dee cent sénégalais la mën naa ni soixante quinze wala soixante quinze pour cent bi jàngalekat alxuraan yi ñoo leen gën parce que ñoom bariwuñu kon bokk na si li tax jullit bu nekk xam ni saa boo jugee ne ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu an muhammad rasulullah nga ne yow da ngay seere ni yàlla kenn la te rasul te rasul amul lu dul alquran alquran mooy diine alquran mooy Seydina Xassala Sallam Macky Sall nag programme am daf cee bokk toroxal ak xeex diine wane na ko ci Charlie Hebdo ñuy caricature Seydina Xassala Sallam di ko ñaawal mu dem ca dara fekk ay ustaas yu waarate ba léegi ñu ngi koy defaan ci télé bi di defaan Macky Sall na ko ci ba bu ñuy mujj sax France bi ñuy mujj ne dañuy blasphème maanaam dañuy ñàkkal fay di lépp loo xamante ne kat day day day day taxawal diine rawatina suñu sang bu tedd bi salaa salaam Macky Sall dem fekkiwaat ñun ñuy woote fii obélisque wuyu si ñoom nag naqar am tiis bu metti amit yëgal bu ñu yëgal sénégalais ci citoyen parce que diine bi l'islam li ko tax a eggi fii ay yambar dañ koo yeggalul fii mhm. ña sos bu ñu nekkoon ni ragal mbaa ay yambar mbaa ay yaafus l'islam du egg si fi loolu il faut ngeen xam ko il ngeen xam ni yéen santuñu leen dara dañu leen ñii dañoo xeex xare ba dara ñii ñu rey leen seen biir néegi sëy ñii Serigne Touba dañ ko yóbu fu ne ndax diine